ci ay at ci ginnaaw lii moo nekkoon cité barak tey bile bërëb daal na soppi xar kanam ci lu gaaw ay dëkkuwaay yu bees mais ngoog jamono la fi njiit réew mi daal di tabax bëgg-bëggam mooy fexe ba jëlee fi lépp lu ñuy woowe ay quartier bidonville ñu amal tey mooy di réceptionner cité baraka mu doon cité bu yàgg lool wax ngeen ko amoon it coono yu bare bare waaye nag ñu sant yàlla ay bâtiment yu bees dëkkuwaayu méngook jamono taaru lool ci biir fukk ak benn bâtiment ñaar téeméer ak fukki appartement lii nag mu doon lu askan wi di rafetlu lool. lii nag mbokk yi bu amee dañu bëgg yéen waa Baraka ngeen jàppale seen bopp si cité bi bañ a mel ni mu meloon ndax dëkkuwaay bu fekkee amul cet. bu ñu ko dul nettoyer bu ñu ko dul bale suñu deful li ci war day dal yàquwaat si saa si bile cité dina tax njaboot ji fi ne jóge ci ndool am dund bu jaar yoon jóge ci ay site barak tàbbi ci ay dëkkuwaay yu méngoog jamono yu mucc ayib loolee nag dina tax Sénégal tegu ci yoonu émergence bëggatuñu ñu jóge fi ñu naan ah baraka gis ngeen ni melaat dafa war a mel nu Fann Résidence dafa war mel nu fii si Cap Liberté dafa war a mel nu e. Baraka nekk projet bu am solo jëmale ko ci Sénégal zéro bidonville gannaaw bi mu yegsee moom njiitu réew mi nag daal nañ ko teeru bis bi fumboon lool laata artiste bi di Pape Diouf daal di amal ab prestation bu jaar yoon. bi nga jàppee ba tey bàyyiwoo. yaa bëgg Sénégal.